هل في الورى من زكى عنا المصطفى ورث القديم ولاية دمود باي هل في الورى من زكى عنا المصطفى ورث القديم ولاية دمود باي فالمصطفى warisa alxadima bi fadlihi wa bi joodihi wa sujaayi domo di baay fal mustafa warisa alxadima bi wa bi ilmi wa bi ilmihi domoo di bàyyi fu sumbi kawnil musawa xat jaarakum xat saarakum ma ahli ya ahlangaay yéen waa Kajoor ke ñu leen bu baax war ngeen kañ ngir musawa ubla mi wa jawaa walaay yaa ahla ñaaxeen ñaaxul leen Cheikh Moussa ñaaxaan leen bi kalaami dem ñaaxi ngaay Jurbel du leen njarfal ndaxam ngir Moussa ñaagaan leen bi kalaami dem ñaagi ngaay yaa axla mbaakol bakku leen Cheikh Moussa bégalaa na leen bi kalaami am ngeen médaille daarom ya Tuuba wa usuma bi ku fa manta dem na siyaara ji ñaaxen mbaate ngaay yaa ahmadum lil muhammadin lil muhammadin yawmal qiyaamati sant leen sunu way wi waay Cheikh Moustapha yaa ne nga xel wo man nga ru yi fi àgguloon jëbal sa baay wo mat gumba yi boola fay tëggal fa loon góor a jigéen yaa ay càngaay ku la daw nga dab ku la fay nga fay le doonu fay mboolem jirim yeeg baay yaay seeni baay yaa nuy teral yaa nuy yaram dinu may dërëm yaa ñuy defal yaa ñuy defal yaay jën waay yaa yor teraangay mag ña Bamba yoraale woon moo tax yilif nga ba jàll saalum jàll xaay yaa xam teraangay waa Kajoor ak waa Bawal yaa yor sangu buuri fi daa dem lambaay wa mën nga naar womat wolof kenn reeratul yaay tiitaru baa doola yeeg ñi fi njaay yaa musawaab nul musawaab nul musawaab yawmal xiyaamati rangu leen nu faay mi daay miskin ya daan jooy Seex Bamba miskin ya daan jooy Seex Bamba ci wan sa sin fellongo seer rongo yaa man la ko ay mag jàqatul ndaw tiita turéew mépp a bég ngir muslukat yi musal nga leen yaa fi sa baay yaatee jagub lislaam ñu soqi ko baaduhu yaay jënuura yaatee mburi di seen mbaar mi naay yaa boole gal boole jën yëpp cër addalu yamaadu li alina yaa milaay yaa boole dongo yi boole bokk yëpp yor yal nang fi def nda njaama dundal fa wi waay taalu murid yi la yaa ko yor yaa tee mu fay xambal sab taal du fay sew nit du daay yaa mu tabaam nu mujtaba ibnul mujtaba yawmal qiyaamati boole leenu ci gaaya Musa kalaamullaahi moonal musawa wàññil juróom fukki julli matul ab jataay Musa kami mooy lappatoo mi le musawa yaa moom jumaaje